nit ñi dañuy am ay jafe-jafe kayit. Mhm. ñëw di ko waxtaan ak yow. Mhm. yow lan ngay jëfandikoo ba tax yëf yi yoom waa loolu loolu nag soxna Mbaye dama la koy ñaan. waaw maanaam képp koo xamante ni yaa ngi bitim réew. moo xam kayit jafe la. waaw moo xam euh, moo xam kër jafe la fa. moo xam xaalis jafe la fa. moo xam nga am njaboot goo xamante ne ni da bëgg ñu tege tegeeti siraatal mustaqim. waaw lenn lii laa xam ne képp ku koy def moom jafe-jafe boobu doo ko am. Mm. mooy da ngay julli ñaari rakk. waaw bu njëkk bi nga tari faatiha alam nasra. Mm-hmm. beneen rakk bi ci topp nga def fatiha inna anzalnaahu mhm. boo noppee nga def astaghfirullah téeméer mhm. boo paree nga def wayan xalibu ila ahlihi masruran téeméer mhm. boo paree nga def salaatul fatiha 222 képp ku ko def amul benn benn benn jafe-jafe boo xamante ne nii nit ki dana ko am ci wàllu këyit kon yow lii maye kayit ko képp ku def lii ma wax nii suñu borom dana la ko may yow ma defoon ay koppar yu bari rek nga mën a maye ndeke da ngay maye wàll xam-xam bi itam eh, ci la boo ñëwee dama koy may nit ñi <laughs> bi moo ñu ko dul may waaye léegi eh, mais bamtuwaatal ko gars maanaam fatiha fatiha alam nasara fatiha ina anzalnaaw après nga def astaghfirullah téeméer boo sëlmalee téeméer boo sëlmalee wayan xalibu ila ahlihi masruran mm. nga def ko téeméer mm. def salaatul fatiha 222 amul benn benn aajo joo xamante ni ci tukki la aju mm. nit ki def ko te sunu fajo fajalu ko moo xam fii moo xam fële waaw wayan xali bu ilaa ahlihi masruran mooy nang ma delloo ci sama ci samay ñoñ mm. ma ànd ak kon kii nga xamante ni tukku ne di dellu yóbbaale mbégte mooy la mbëgg bëgg am na ko mu ngi noonu numéro yaa ngi noonu ci suufu bi damay bañ a jël temps bi lu baree bari mm-hmm. mais euh, mbirum xeex tam